salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci xibaar yu mujj jëm ci tàggat yaram waaye laata loolee kuy gan ci page bi te abone go ñoo ngi lay ñaan nga abonné bés kolos bi nga xam ne lu ñu dugg rek di nga bokk ci ñu koy njëkk a jot ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di saajo maane ñancoo bu ñu sukkandikoo ci bild li mu xamle moo di kat Bayern de Munich de ñoo ngi wax ne dafa bëgg Sadio maane waaye kat Paris moo gën a jekku ngir jënd ko ñaar yii nag moo tax bild xamle loolee ba ci njëkk moo di kat Sadio Mané ne ba muy fayeeku néew na lool ndax kat bu ñu xoolee juróom ña ëpp la ñuy fayeeku ci Liverpool moom mii di Sadio Mané bokk ca la muy fayeeku juróom benn million yu toftal la matul sax juróom ñaari million te ñii di waa Paris kat noppi nañu ngir fay ko xaalis bu bari mu dem foofee loolee sax tax na doomu Sénégal bi ma ngay xel yaar ba xam dina yokk contrat am foofee ca Liverpool am déet su fekkee yokkul contrat am nag ñii di waa Paris ñoo gën a jekk ko Bayern de ngir jënd ko Paris nag la mu bëgg moo di Kylian Mbappé su fa jugee ku ko wuutu dem foofee di dugal ay bit te doomu Sénégal bii kat waa Paris yaa ngi koy bàyyi xel. ñu jugee ci Sadio maane jël doomu Gabon bii di Abamayang di football ca Barcelone moom nag démb dafa bindoon bataaxal fédération gabonaise de football xamal leen ne leen kat ay godaasam daf ko bëgg a tekki ca équipe nationale boobee loolee nag fédération bu Gabon ba tey jii la ñu ko siiwal xamal askanu Gabon gépp ne leen kat seen doom ji bàyyi na équipe nationale bu Gabon fàttali coupe d'Afrique bii weesu jëf ju ñaaw la defoon moom ak Mario Lemina ndax kat dañoo demoon soirée ànd ak seeni coro ñëw di jayi jayi ne dañuy dugg ca hôtel boobee ñu ne leen du ngeen dugg ci hôtel ba ba coow la baree nag ñu bàyyi leen ñu dugg waaye ba ñu fanaanee ba bët set fédération Gabon boobee ak entraîneur baak ñëpp kat ci lañ leen dàq ñu dellu ca tugal loole nag tax na kii di Abamayang nee na tekki na ay godaasam foofee moom nag yàgg na lool ca équipe nationale boobee ndax 2009 football foofee football na fa 73 match juróom ñaar fukki match ak ñett dugal na fa 30 but fanweeri but kon Abamayang daal tekki na godaasam ca équipe national bu Gabon ñu jugee ci Abamayang dem ca waa Côte d'Ivoire ñoom nag seen président fédération ba li mu xamle tey jii moo di ajjuma bu 11 de mi jotee dinañu xam kuy tàggat équipe national bu Côte d'Ivoire président ba mi ngi tudd Idrissa Diallo li mu xamle moo kat Patrice Bomel dinañu xam àjjuma ku koy wuutu foofee moom mii nag di Patrice Bomel dañu ko dàqoon ndax résultat yu bon Coupe d'Afrique ba kat dem na ca génn na ca puulam waaye huitième de finale Égypte la taseel Égypte génne ko ci pom yi par tir au but te barrage Coupe di monde ba tamit demuñ woon la ñu bëgg nag moo di wut entraîneur bu baax nga xam ne Coupe d'Afrique bi war a am ci atum 2023 bu ñu ko organiser ci seen dëkk boobee ñu mën a jël coupe ba àjjuma nag la ñu nam siiwal ki nar a Patrice Bomel ñu jugee ci waa Côte d'Ivoire dem ca waa Arsenal doomu Brésil bii di Marquinhos ñu leen doon wax ay waxam bërki démb ne Arsenal bëgg mu nekk ca Sao Paulo Arsenal nag jënd na ko officiel na 3,5 millions d'euros la ñu ko jëndee gone gi xaatim na contrat wu juróomi at saison bii di ñëw foofee ca Arsenal lay football gone gi nag excentré la bu mën la muy def kon nag moom mii di Marquinhos dem na foofee ca Arsenal ñu jugee ci waa Arsenal dem ca waa Manchester City seen milieu Sénégalais bi di capitaine foofee di Fernandinho day jógee foofe bu saison bi jeexee waaye kat Pep Guardiola ma ngi koy wutal remplaçant gone gii di doomu Angleterre tudd Calvin Phillips ma nga ca Leeds United moom la Pep Guardiola bëgg te Guardiola kat bu gone gi daan football day yebal ay nit ngir ñu koy bàyyi xel moom nag la mu jàpp moo dem mbir ma mën naa bañ a jafe li ko waral moo di kat Leeds ci yoonu wàcc dem championship la nekk te su fekkee loolu am na mën naa yombal mbir mi milieu de terrain bu mën la muy def la équipe nationale bu Angleterre dafay départ titulaire ñu jugee ci waa Manchester City jël doomu Portugal bii di Trincao moom mii nag Barcelone moo ko moom waaye ma ngi ko abale ca Premier League ba ca Wolverhampton la gone gi di football waa Sporting dañu ko bëgg waaye Sporting la mu bëgg moo di Barcelone abal leen gone gi waaye Barça jamono jii li mu bëgg moo di xaalis moo tax kat xamal na waa Sporting ne leen gone gi mënuma koo able dama koo bëgg a jaay Sporting nag nee na ko li nga wax de bëgg naa ko waaye faaw nga wàññi mën koo jënd waaye nag waxtaan ba ma ngay wëy te jëm na kanam bu baax a baax ngir kat kii di Trincao waa Barcelone jaay ko waa Sporting te ñaari club yi ñu ngi waxtaan. loolee Abola moo ko xam xamle ñu jugee ci Trincao dem ca waa AC Milan ñoom nag keroog dimanche bi ñu dooree Atalanta Bergame dañu leen mayoon repos ñaari fan entraînement yi nag door nañ ko tey jii ngir waajal match bu mujj ci saison bi match boobee dimanche lay am ñoom ak Sassuolo ñooy jàkkaarloo waaye ki buy gañee kenn du ko soppi ñaari matsam yu mujj yi gone ya ca départoon gone yooyekat lay départ lowaat dimanche incha allah ba ñuy jàkkaarloo ak Hellas Verona ak match bu ci mujj ñoom ak Atalanta Bergame Olivier Giroud mooy su suñu demee ba deuxième mi bu dëgëree kii di Ribix si dugg ngir lijjanti mbir ma match boobee nag dimanche la bu quatre heures jotee kon gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah